dañoo jàpp ni du ñu nangu kenn noot ñu parce que ñun dañu engagé wu pour dëgg ak pour suñu dignité te loolu ñu ngi koy def nag ci ci si mu nekk njëriñu askan bi yëpp mais njëriñu justice di njëriñu citoyen yi ba tax na nag loolu mënuñoo euh, xoqatal mënuñoo tere def lu ñuy def dinañ ko kone di def ba ñëpp xam dëgg bi fan la nekk ak li dul dëgg fu fu mu fu mu nekk Euh, sunu sunu organisation bi nag di UMS bon niñ ko attaqué attaque yu ñaaw yooyu yu jóge ci ministère dafay wane ne ministre bi euh, taxawaay bi mu waroon taxaw en tant que kilifa bu tool noonu ñu jox ko département boo xam ne dafa am solo ci ci dëkk comme justice taxawul taxawaay bu mel noonu euh, loolu nag moo tax ba ñun ñu daal ni il faut ñu jël sunu sunu sunu décision wax li nga xam ne moom lañu ñu nar dañoo njëkk laajte sunu yeneen kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ci biir réew mi yi nga xam dafa am ay magistrat ñoo ñëpp nag daal di taxaw jàppoo ah, daal di daal di ñi ñi ngi si ginnaaw UMS ba pare yemuñ si loolu ku si nekk si ñoom génn nga benn déclaration mooy comité de ressort yi te seen déclaration yi li ñu ci wax dafa leer te dafa méngoo ci kaw loolu nag le bureau bi au non de l'UMS daal di jël ay ay ay décision yoo xam ne moom lay waaj a nii moom lay waaje liir nii bi si njëkk mooy fi mu ne ni ñu dañoo décider arrêté benn forme de collaboration dootuñu amati daal dara lu ñuy seq ak ministère de la justice Malick Sall ñi ngi ñi ngi laaj aussi ñu jëlee ko ci ministre de la ministère de la justice ñu mu gën a gaawee parce que dañu seetlu ni bi mu ñëwee ci ministère bi ba léegi problème yi bëri na alors que dafa doon taxaw taxawaayu kuy defar te loolu dafay tax ba justice bi du dox te bu justice bi doxul waaw euh, dëkk bi du du du problème yi dina bëri ñu ngi laaj aussi ñu bàyyi Souleymane ko poursuite yi nga xam ne moom la ñu intenté contre moom ñu ñu arrêté ko parce que c'est des poursuites yoo xam ne wéeruñu ko ci dara loo xam ne lu lu lu lu lu am solo la di dëgg aussi wéeruñu ko ci dara loo xam ne dëgg la wala lu am solo ñu ngi tamit ñaan suñu collègue yëpp ñi nga xam ne ay ay magistrat lañu ñu def seen bopp avocat wu Souleymane Téliko Souleymane Téliko am nay avocat waaye ñun aussi yoon may nañu ñu def suñu bopp avocat bés buñ ko woowee ni dañ koy atte ñun ñëpp am nañu droit ñëw sol suñu robe ni dañuy nekk avocat ñu ngi ñaan suñu collègue yëpp ñu def loolu euh, ñu ngi ñu ngi ñaan aussi ñu ngi laaj président de la république pour mu jël matuwaay matuwaay yi nga xam ne moom moom la dëkk bi soxla ni fi mu ne nii pour que justice bi di dox dox dox ni mu war a doxee parce que justice bi fi mu ne nii doxul ni mu war a doxee ñu ngi aussi euh, rafetlu euh, Sénégalais yi peuple bi ni ñuy euh, mobiliser woo jàppale ñu wan ñu ni combat bi du suñu combat rek seen combat la ñoom tamit loolu ñu ngi koy rafetlu waaw ñu ngi gërëm aussi di di di di rafetlu taxawaay bépp nit boo xam ne rek dëgg la tax jóg te da ngay bëgg di xeex pour dëgg di am ak justice di am ci dëkk. waaw euh, fi mu may mujjee nekk mooy sunu sunu euh, collègue yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu nekk benn te ñu fexe ba kenn du leen manipuler di leen jéem a jaxase ak euh, bureau bi wala association bi parce que li ñuy def nii pour ñoom la.